ci ndigal ak turu ak Cheikh mu taxa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér kàttanal ko ba mboolem naal yi mu am ci liggéeyal Serigne Touba moom ko ba ñu del siwaat fii nag tey ci niñ ko baaxoo defee ci li ñuy tudde wala euh, affaire Cheikh ni ko sëriñ Fallou waxee léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jublu bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Touba ndax sëriñ bi fi jaar dafa bari ñi am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu kon ñett li seeni jeexit ñett li jeexit sëriñ Touba moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bi mas a jaar la ñu demaat fa fàttali da taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xew na bu dee barab boo xam ne itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu ñi nga xam ne itam njabootu sëriñ bi lañ wala ñu àndoon sëriñ bi itam ñu defe ko noonu ndax ñoom kat xam leen mooy xam le Serigne Touba moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci yobooru Serigne Touba tànn kenn ci bokk yi bokki Serigne bi tànn kenn ci cheikh Serigne tànn léeg-léeg ñu tànn leen ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi déet ku ci ne am na ci barab yoo xam ne lañ seqoon na Serigne bi yàgg na tere na ba histoire boo ko du nett li di ko fàttali wala nga di ko bind bu yàggee day mujj mel lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen liggéey bi nekk ci seen loxo ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat itam ndax na ngeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekke ñooy dellusiwaat di ko wax euh, Serigne Sidi Muxtaar am na ay yoonu yoon at mu jot moo may fàttali ne ma liggéey boobu ñuy wax caravane bi de xam naa lu lu soxal bokk jullit yi la ndax ñoo ñëw bu fi di ko wax mbokki taalibe yi itam noonu la leen itteele moo tax rek jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttali leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon sëriñ ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam dañ ko mën a war a leeral luñ ko def wala daal ngeen xam ne dañu ngeen kee cantuk sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussar bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la liy tàmbale bi mu fi bàyyi ko itam yoon wi lépp lu ñu ci def ki fi nekk Sëriñ Tuubaa moo ci sañ digle moo ci sañ a tere moo tax duñu seq benn jéego te laaj ko ci digal daaw bi nga xamee ne mi ngi tàmbul liggéey bi par laa daal di jokk laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko lépp ba xam ni mu daa mu jox waa ci digal yeesaar ko ren ji itam laata ñu seqwaat benn jéego demaat nañ ba ci moom laajaat ko ci ndigal mu jox waa ndigal kon ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa li ngeen ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu amiin yàlla ngeen ci daje ngërëmam yàlla na suñu boroom aar sàmm leen ba ngeen dem ak jàmm dellusiwaat ak jàmm te daje ci ak ndam loo xam ne mosuñu ko jàmm ñu ngi leen koy ñaanal bu baax te na ngeen ci rafet jot ndax ndigal moom lépp lu ko loo xam ne eh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege hmm. kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di fàttali itam nag eh, ni ñu ko daa waxee bis bis bu njëkk ci safara muy suba ci altine ji eh, lañ war a jàng alxuraan bu fekkente ne ndax weer day feeñ wala mu ñàkk feeñ comme guddi xasida rek bëgguñu woon mu nekk lu lu weesu bisu bis bu njëkk ci safar moo tax ñu jàpp ko suba ci guddi njàngum alxuraan bi itam ñu jàpp ko ginnaaw boo xamee ne ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw ku ci ne eh, jot na la ko ci ndigalu sëriñ bañ déggoo ci jiitu ci wàllu alxuraan di cheikh sëriñ Mamour Mbacke ibnu cheikh Mamour mi nga xam ne moo koy taxaw ànd ko sëriñ Xaadi Jaxate ba ca del dolli ko waatit mooy eh, sëriñ Hamsatu Mbacke ibnu sëriñ Soxayu mi nga xam ne guddi xasida gi mooy jëwriñ ji moo koy taxawu ñu fas fas ko yéene ànd ak moom ci penk jumaa ji delloo lépp toroxlu dellu ci yàlla euh, teewlu Sëriñ Tuubaa hmm. jàngi xasida bi ñaan màggal bi jàmm njëkk ci mujj si te lépp lu ñu ci def itam day see ngërëmu Sëriñ Tuubaa te dara loo xam ne mbirum àdduna la bañ ca tax bi dara loo xam ne lu dëppoo wut ak bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa bañ ca tab bi kon ñu nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu sëriñ Mourou Bakké si ñi nga xam ne moom la sëriñ Abdou Lahad tànn ci liggéey bi mu jiite ko moo ñu ko àndal jëm ñëpp di sëriñ Fallou ak euh, sëriñ Gana Messere ak ñi nga xam ne dolliwaat nañ leen ci ren euh, xëy na euh, kayit yi nekk fekkuma fi ba ma mën a lim tur yëpp waaye bu ñu xasee tudd ñi ko jiite rek ñëpp tàbb nañ ci biir da ngeen xam ne sant nañ leen gërëm nañ leen ndax liggéey bi ñu ngi ko topp waaye gis nañ jeexee ji gis njëriñ kon yàlla ngeen ko yàgg def. day ci tawfeex day ci ngërëm Sëriñ Tuubaa